mbokki jullit yi mbokki Sénégal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne mbooleem ñiy melal ak ñiy nataal ak desin lott ci melal jëmmam ja aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam kullu ma yutasawwaru fil ashaani fa subhaanahu bi xilaafi lépp loo xam ne xel mën na koo jàpp wala nataal wala lu mën a doon loola wuute naa jëmmi sunu borom ja subhanahu wa taala di yeesal sunu taalibe ak sunu jëbbalu ci Mawlaana Muhammad eh, Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul di sunu cofeel ci moom ak sunu mbëggeel ci moom tay nak ñu bëgg waxtaan tuuti ci walu astronomie xamna ay léral yu gatt rek yo xamné suñu suñ kamtalaay katan ak li am ci waxtu temps ndax mbir la mo xamné dañ ci yëngu waxtu wu nekk di ci gëstu di ci jang ak di ko nat di def li ñu tëjee tajriba moy al umur al tajribiya mbir yoo xam ne danga koy natt di ko diko di ko jàngat di ko ngir xam-xam mëna xam-xam boo xam ne dañ koy mën a jariñoo ndax xam-xam balaa doon xam-xam dëgg day nekk luñ mën a jariñoo te balaa fekk nga mën koo leeral day fekk nga xam ko lépp loo gis nit mënu koo leeral mooy daka xamut wa ilaa boog suñu borom jox ko làmmiñ wu mën a leeralool loola mbir la moo xam ne nag yàgg nañ di ci gëstu ni ma ko waxee daanaka mat na fanweeri at ñu ngi ci waxtu wu nekk Euh, bu dee luñ ci war a jàng luñ ci war a topp ndax jàng day am xam-xam dañ koy jàng soo ko jàngee ba noppi nga topp ko topp ko nga jëfe ko mooy tax nga mën ci am loo mën a teg ci loxol nit ñi lu nit ñi mën a jariñoo ndax afdalul xilmi ay yataalama arrajulu xilman su ma yuallimu aqaaw loolu mooy jàng xam-xam ba noppi jàngale ko Euh, dëgg la nag du caage ne xam-xamu astronome rek ndax euh, gëstu bi def ci wàllu astronomie ak temps biñ ci def ak yooyu yëpp bu dee benn temps bi def ci wàllu wér yaram mat na ko ñaar xëy na dañuy nit ñi day am looy gën a siiwee rek waaye gëstu ci wàllu faj ak ci wàllu garaba yu ci aju luñ def ci astronome bi rek bii def nañ ci ñaaram waaw. Eh, liñ bëggoon leeral ci wàllu astronomie nag ci mbokk yu bari di ko laaj mi ngi jëm ci li ñuy tudde alkawnu alkawnu suñ ko waxee mooy àdduna bépp alkawnu boobu nag da ca am pàcc bu tuuti ndax ci lañ mën a jàngat ngir mën a am ak ragal yàlla ci lañ mën a jàngat ngir mën a xam kawteef yi suñu borom def ni mu rëyee ak distance yi ni mu toll espace yi ak siifo yi te lépp mu nekk loo xam ne yàllaa ko sàkk te kenn dimbaliwu ko ci te walam yaxya bi xalqihinna waaw te bu neexee sunu borom in yasah yusibkum wa yati bi xalqin jadirin bu neexee yàlla mu effacé lépp tàmbaliwaat lu bees te du ko yàqal dara nag moo tax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma radiyallahu anhu dalaa wax ne allahu la si joo gis la ca teg la ca tege mbindeef mënu ko waaw allahu la si joo gis mu ne la ca tege mbindeef mënu ko ndax xalaxa samaawaati rek ngay dégg kawnu boobu nga xam ne dafa yaatu dimension bu rëy dafa am lu ñu tudde al kawnu al mariyu muy univers visible li nga xam ne espace bi nga xam ne am nañ ko ci kawnu bi di ko topp di ko observer ban dimension la yaatuwaay bi nga ko doon xayma mi ngi toll ci quatre-vingt-treize milliards années lumière année lumière mooy lan suñ ko xayma ci yaatuwaay di ko natt nan lay toll benn anné lumière mi ngi toll ci dix mille milliards kilomètres yaatuwaay maanaam fukki junni milliards ci ay kilomètres mooy benn année lumière benn année lumière boobu ba muy juróom-ñeen fukki junni ak ñetti junni ci ay milliards année lumière mooy li nga xam ne moom lañu ñu observé ci ndànd fay-fay gi ci dënd bi ñu tiim quatre-vingt-treize milliards années lumière yooyu ak li xam-xam di bari bari ba aadama wàccee ba fii ñu toll ak li tubaab yi découvrir yëpp ak boroom xam-xam yi leen jiitu woon ak moyens yi ñu am yëpp buñ ko dajalee cinq pour cent lañ ci xamagoon cinq pour cent te xam ngi sax mën naa gën a xóot ndax suuf si rek xamaguñ ko dëgg am na yu bari yu ump boroom xam yu ump tubaab bi ump ñëpp ci suuf si suuf si ñu dëkk kon jëlale naa suñ xamoon cinq pour cent yi dëgg-dëgg ndax ba tey ci lañ des di ci gëstu te liñ ci xam lu mu bari bari jàppal na des na fukk yuñ xamagoon kon des na quatre vingt quinze pour cent maanaam univers visible mooy li nga xam ne ñu ngi koy topp ci ay satellite ci ay viso espace ci ay xam-xam ci ay jàngat ci ay science ci wet yépp loolu lañ tuddee univers visible muy alkawnu nar yi li des ci dun bi ci kawnu bi nga xam ne kenn xamagu ko ak liñ jàpp ne xamagoon nañ ko ci buñ ko doon xayma mi ngi mel ni géej gépp nga jël ci genn toq année weer visible boobu lépp looy dégg ci mu doon weer wu ñuy tiim comme suñu weer wii wala mu doon planète comme planète yi di wër jant bi wala mu doon biddiw comme jant bi yépp ci biir année weer visible boobu la nekk ci biir tey dem ci biir cinq pour cent yi la ci bir 5% yoyu mo am ñaari téméré milliard galaxies lan moy galaxies suñ ko don suma ko don misal dama nan lay ab layu xam ngeen layu moy palaat bu ngand lo lañ tuddé galaxies palaat palaat bu ngand bobu bami ñaar téméré milliard bo ci jëlé ben moy suñu galaxie bi non ñu tuddé ko majra darbo tabbana lakti biñu nekk noon ñaata bidiw la am am na ñeenti téeméeri milliard bidiw te benn bidiw boo ci jël am na ay palaanit yu bari yu koy wër palaanit yooyu boo ci jël am na ay ay weer yu ay weer yu bari yu koy wër jant bii ñu tiim ak suuf si ñu dëkk noonu ak juróom-ñaari planètes yi wër jant bi yépp jant boobu ñuy wër ab biddiw la te jant boobu galaxie bi mu nekk nekk na ak moroomam lu toll ci ñeenti téeméeri milliards biddiw te am na ci biddiw yoo xam ne ñoo ëpp jant bi yi ñaari yoon lañ ko ëppee yii ñett yoon lañ ko ëppee yii fukki yoon yi téeméeri yoon yi junni yii million yii ay milliards yoon kon ñaata planète ñoo wara am ndax bu dé bo jëlé benn galaxie waxna yel né ne méri milliards galaxies moy liñu gissagul té te né amna diko top ci xam-xam nga jël ci benn galaxie moy bi nekk non sunu galaxie bobu nan la yaato 120000 années lumière non la yaato téméri junni ak ñaar fukki junni ci ay années lumière te benn année lumière boo ci jël mooy dix mille milliards kilomètres suñu centre bi ñu nekk muy jant bi ak planète di koy wër yëpp muy suuf si muy xotaarit muy wanus muy miriix muy mars muy eh, Uranus muy nipton ba biñ ci mujj génn sax yooyu yëpp fi mu placé wu ci galaxie bi ñu nekk noonu ak diggante santaru galaxie bi vingt six mille années lumière la ñaar fukki junni ak juróom benn junni ci ay lumière moo tax trou noir yi duñ mën a wann système lumière bi sunu borom moo ko monte foofu ndax in kullu nafsin lama alayha hafisun yàlla bi muy jàngale wa shamaa i wa taariq wa ma adraka ma taariq an najmu saaxib in kullu nafsin lama alayha hafis dafa jël système lumière bi placé ko ci galaxie bi foo xam ne dana sori trou noir yi ba nga xam ne benn trou noir du ko mën a wan ndax trou noir yi dañuy wan biddiw yi di wan planètes yi di wan bépp leer bu ko jege fala uqsimu bil xunnasil jawaaril kunnasi wa layli isaa xasas seenug leeraay ak seenu gaawaay àgg na foo xam ne bépp biddiw bu leen jege ñu wann la su ma jégué nak moy bo leen ay ay at lumière yu new rek man nañ laa wan damaa jëlale ay ay milliards yi at ndax ben année lumière moy 10000 milliards kilomètres kon santaru système système solaire bi fi mu nek ci galaxie bi ak digg galaxie bi nga xam da nga yu bari ci toit noir fa lañ nek 26000 années lumière la jant bi di benn biddiw ñaata planète ñoo koy topp mat nañ juróom-ñaar ba juróom-ñett kon yeneen biddiw yu fi nekk te xam ne mat nañ ñeenti téeméeri milliards biddiw ñaata planète ñoo leen di wër planète boo jël ñaata weer ñoo koy wër ma jox leen exemple bu gaaw suñu suuf si ñu nekk noonu benn weer moo koy wër muy weer wii tam xarit màggal gàmmu rakki gàmm rakkaati gàmm maamu koor ndeyi koor baraxlu koor koor yi digg tabaski fukki weer a ñaar weer yu koy wër wenn la planète bi ñu tuddee mustari yi mooy Jupiter ñaata weer la am moom soixante-dix-neuf weer planète suxal suxal planète suxal ñaata weer la am am na cent vingt six weer te mooy yin gisagun mën naa yokk ndax gisuñu woon loolu bu ñëk xam-xam lay yok ba seen ñuy gis lu ñu gisutoon kon boo doon toppa planète yi wër jant bi planète bu ci nekk da ngay gis bo xam day am 79 am bo xam day am fukk am bo xam day téméré ñaar fukk gis bo xam ne benn lay am comme sun suuf si nga dajale lool lépp nag pala euh, weer yooyu di wër planète yooyu planète yooyu di wër benn bidiw mooy jant bi jant bi fi mu nekk nekk na fa ñeenti téeméeri milliards bidiw yoo xam ne yii mat nañ ko benn yoon yii mat nañ ko ñaar yii téeméeri yee ay milliards yoon kon sunu galaxie bu nun ci xayma ci walu xam-xam japp nañ ne am na ñeenti téeméeri milliards diw te benn galaxy la ban galaxy moonu gën a jege galaksi galaxy yi mat nañu ñaar téeméeri milliards galaxy ñun galaxy bi ñu gën a jege ñu ngi andormin, galaksi musalsila maanaam andormin jage. Fuwanin moo ñu gën a jege pour wan leen galaxy ni ñu ëppante ñun sun galaxy bi wax naa leen yaatuwaay bi années lumière la ben année lumière dix mille milliards kilomètres galaxie bi ñu gën a jege nga xam ne boo suñu galaxie bi galaxie bobu nga ci topp galaxie boobu yaatuwaayam mi ngi ci deux millions cinq cent mille année lumière muy Andormine am na junni junni milliard biddiw mi milliard video mom la am te video bo fa gis amna ay planètes yu koy wër man na mat fuk man na mat témir man na mat sax jundi kon diggante ñaari planètes yi nga gis espace bi ni mu toll deux moom yaatuwaayam wax naa len ko 2 millions 500000 années lumière moom la planète bobu moom la galaxie bobu yaato te moy galaxie bi ñu bi ñu gëna a te bu aduna di dox te taxawut bis dina ñew ñaari galaxy yi dajante So juga ci galaxy andor min am galaxy yeneen galaxie yoo ciy ba mi ñaar téméré milliard nga dajal posa yo yépp nak ci biir 5 yi la nek ci biir galaxie yooyu ci ngay fekk ay tour noir tour noir moy lan ay ju ñu kuk ay bën bën yu nekk ci jawu ji bën-bën yu yaatu énergie ba fa nekk kenn mënu koo xayma ndax bari ba bépp biddiw bu ko jegee mu wann la fala aqsum bil xunnasil jawaari lu mu romb rek dagaase ko ñuulaay ba ak lëndamaay ga tax na genn leer mënu ko nit day lekk leer yépp te moo tax ci farada yaat yi yi ñu jàpp ne am na mooy ginnaaw trou noir am na kon trou balance am na turu balance kon nan la war a mel suñ borom dafa programme àdduna te bëggul programme bi yàq wala mu échec bu bindee dara day bind dara teg ca wet ga min kulli zawjayni isnayni bi mu bindee trou noir la bind trou balance ba trou noir di lekk biddiw yi ngir di leen xëcc trou balance yi di dagaase biddiw yi yi biddiw yi yàlla namul trou noir yi lekk ko trou balance yi moo leen di dagaase ñu di ko sori bii day xëcc bii di puus su borom noonu la bind àdduna moo tax ci ci teel waxoon na ne maa tara fi xalqi rahmaani min tafawutin farjihil basara altara min futurin suma irjihil basara karatayni yanqalib ilayka basul xaasim wala wa xashirun yàlla lim bind du am échec du am faute du am défaut du am retard du am avancé te avancé jotugam dara du ci rëcc mu téye ko ba mu dëgër di ko doxal ci nisaam daqiq mooy organisation bu sensible boo xam ne dara du yàqu gis nga boo xamee ne planète di noonu noonu ñu bindoo ak weer yooyu ak distance yu ñu am ni mu rëyee lu bari ci ay boromi xam-xam ci tubaab yi dañuy jékki-jékki dof wala ñu xaru wala ñu xëy bàyyi àdduna donte na jaamun yàlla duutum dëgg dara beru fenn ba keroog ñuy faatu loolu dem na ba ci lenn ci tubaab yi dem ci jaww ji ak li ñu bari bari xam-xam yépp ak seen moyen yépp saa bu ñu dellusee indaale ay wéradi yoo xam ne kenn du ko mën a faj ñi demoo nit ñoo ñoo dem ci weer wi indi nañ fi ay wéradi yu bari dañuy mujj faatu kenn du leen mën a faj ak moyen bi ñu am yëpp nag rek ñu xam ne kaw ga moom bokkut ak suuf si bu dee ci nit yàlla yi bu ñu xalaat loolu dañuy dem ba fase àdduna bàyyi ko dara duutu saf ci ñoom ndax màggu yàlla gi ñu gis mu di leen tiim ak satwu bi nga xam ne yàlla def na ko mooy occuper lépp téye ko xëy bu boobu mu am di ko doxal te dara du jaxasoo suuf si ñun dañ ciy dund moo tax garaawut ci ñun waaye boo yéegoon ci jaww ji juróom benn milliards kilomètres dootoo ñemee xool suuf si bu ne la si la doo ko gëm ndax tuutiwaay moo gën a tuuti biddiw yi ngay seen nga séen ko muy féey mu leeral leeri di féey ne juróom-ñetti milliards nit ña ca ñaari téeméeri réew ak seeni gouvernement ak la ko ëmb lépp ci kattan ak ci ngànnaay fee la nekk muy féey ci jaww ji loolu tubaab yi bari dof nañ ci ñu bari bu ñu delsee dootuñ nekk nit dootuñ mën a dund ci àdduna bi normal ñu bari bu ñu delsee seeni nopp day tëx ndax loolu loolu ñuy yaakaar lool te duñ ko mën a expliquer parce que munu yàlla ki gëm yàlla nag di xaraat loolu moom da koy yóbbee mu fase àdduna ba lu bari du ci am soxla nit yalla yi ngi seen ñu ragal yalla ba bayyi aduna loolu rek la dañuy xalaat magu yalla gi ci loolu ndax su nurihum ayatina fil afaqu fi antasim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq yalla waxon na ne dana leen ko won ci gox yëpp ba ngeen xamne man ma yalla ma bindi lepp mom ko te dara fekkuma ci legi nga boole ñaar téméri milliards galaxie yooyu yëpp ak yaatu ay ci biir galaxie yooyu nga fekk ci ay trou noir comme ni mako waxe te trou noir yi li ci science xam-xam topagul min ci 40 quintillion trillion manam 40000 milliards trou noir te da ngay jël ben trou noir mu upp jant bi juroom ben fukki milliards yoon amna ci trou noir yo xamne mat nañu jant bi 60 milliards yi ay 5 milliards yi 10000 milliards yi sa am yo xamna dem ba mat ko million ay million ci ay milliards kon demi trou noir yi kep dañu bari 40000 milliards trou noir ci trou noir bu ñu leer gi ci gi ci kaw suuf yëpp énergie bépp def ko benn làmp bis bu ko jegee lu toll ci cent mille milliards kilomètres mu wan leer googu ba dara dootul feeñ jant bi bu jege woon trou noir yi wan jant bi wan naa le yi di koy wër yëpp ak wi ak seeni weer te du yàq dara ci nu ko yàlla bindi loolu mooy trou tournoir yoy nga diko wagn ba mat 40000 mille milliards ñeen fukki junniy milliards yu tek ci ay trou noir xam-xam trouvé nako donte xamagut nak deug deug trou noir lan la parce que ñu am xam-xam bu ñu ci yeggale nga dajal lool lepp muy 5% 95% yi anam moy lo xam kën tané wala ci ta 95% yoyu 71% yi muslima moy matière noire nga xam ne kenn tanewula ci xamuñ doomu aadama amagul ci xam-xam lu mu ko mën a xamee quinze dix cent ba quinze pour cent yi di attaqatul muslima mooy li ñuy tuddee énergie noire nga xam ne doomu aadama trouvé gu ko xamu ko ak li mu yor ci xam-xam lépp ak jur gi jur doomu nga xam ne secteurs yi ay milliards la ëpp na fukki junni milliards ak ñaar ak xel mi ko yàlla jox lépp ak capacité bi taxagul mu xam loolu xamul sax lu ci jëm lim xamagul nii sax xam-xam bi mateegu ko noonu maanaam warigu ko peegagu ndax suuf si rek peegaguñ ko am na ay question yu fi nekk yoo ba tey kenn mënu koo tontu kenn xamagul lu tax boo demee fii ci géej gi ci ron géej gi da gis ay xeer yuy rëdd terrain yu jekk di daw te kenn xamagul nature bi lan la lu ko waral ak lu koy def suuf si am ay fepp sara yu tuutu yu ci nekk yoo xamee ne benn bu ci nekk mën naa taal suuf si ba noppi nekk ci ay milliards te ba tey suuf si takkut te mënuñoo xam naka la nga xam ne borom xam-xam yëpp dañoo lott ci loolu kon bu ñu xaymaa univers visible muy alkawnul mar yi liñ ci buñ liñ ci gisagun mu toll ci katab ya ci yaatuwaay 93 milliards années lumière ben année lumière 10 000 milliards kilomètres 5% lañ ci xamone té ci la lépp nekk ba mbindi fi waccé ci kawsu ba fi ñu toll liñ xam lepp gënul 5% liñ fi gul lepp gënul 5% 95% yi ka ab karaw ci xam-xam ak ki ki liir bi door a ñoo ci yam kenn tanawu ci morom ji xana ci tour wi nga dajale loolu lepp taxul mu yegg ci asamaan su njëkk si ndax wala xad seena sama dunia bi ma shaabiha la alxuraan jàngale woon kon dimension bi nan la war a toll matériel bi gën a kawe ci ci kaw jaww ji bu doomu aadama defaragun ñu koy tudde voyageur un tubaab yi yebaloon ko en dix neuf cent soixante dix muy benn warwaay nit nekku ci dara nekku ci matériel bu ñu def rek muy fiyee ci jaww ji di dem gaawaayam mi ngi toll ci waxtu wu nekk mi ngi daw ci gaawaay soixante et mille kilomètres juróom benn fukki junni ak benn ci ay kilomètres lay daw par waxtu 2012 lay door a génn système lumière bi 2012 kon 1977 ba 2012 lay door a génn système lumière bi te waxtu wu nekk mi ngi daw soixante et mille kilomètres maanaam juróom benn fukki junni ak benn ci ay kilomètres lay daw par waxtu kon loolu bis bi lan lay war a daw te bi mu daree daw ba léegi nga xam ne 1977 ba vingt 24 heures ci année lumière la dawagul kon kañ lay daw semaine lumière kañ lay daw weeru lëm ci lumière kañ lay daw atu limière atu lumière kañ bi mu rëccee 2012 nga xam ne génn si système lumière bi taxagul. mu àggagun ci li ñuy tuddee saxaabatu ort niir ort wenn niir la bu mag woo xam ne boo dépassé système lumière bi moom moom lañ ciy teg niir woowu ay galaxie ñoo ko ay ay ay ay ay ay musannabaat ñoo ko fees del maanaam ay comète comète mooy bi feeñoon bëkk dem fii nga xam ne par quatre-vingt mille années lay siyaare suuf si lay ñëw ba jege waa suuf ma soo gis bëkk démb la ko doomu yi njëkk a bët ba yàlla bindee aduna ba tey muy comté boobu muy musannab musannab boobu musannab A3 A43 ndax par juróom-ñetti fukki junniy at lay wàcc ba jege suuf ci soixante onze millions kilomètres bëkk démb la ko doomu yi njëkk a teg bët ba yàlla sakkee adduna ba tey te teg googu nga koy teg bët mu jege suuf lool ginnaaw bu jant bi soowee seen googu ko seen yaa ngi seen loo xamee soro way bi mi ngi ci soixante onze millions kilomètres te boko ko ak bët doo ko gisaat ndax bala ñëwati ba bët mën ko gis mu toll ci juroom ñett fu jooni at niir woowu mu sannabaan yooyu ñoo fa fees dell ak ay xeer ak li ñuy tudde ay niask nga xam ne lii day doon xeer lii doon gaz lii doon sawara niir woowu pour machine boobu bëtt ko ba jàll Suku ko bëttee ba jall kañ la koy bëtt ndax ginaaw mom bañ ko yónnee 1977 ba 2012 lay door genn système lumière bi kon kañ lay ag ci niro wo su bëttee niro woowu ba paré tamit biddiw bi gëna jégé jege nga né mom, lay ñëk njëkk a jot biddiw boobu suñu ak mom 4 années lumière la té pour mu ag fa dana aajowoo wo 80.000 milliards Kilometer, manam at année pour man fa ag manam ci misal dana dawat 80000 milliards kilomètres pour man fa ag juróom ñett fukki junni ci ay milliards kilomètres lay dawat door man ag ci bidiw bo moy bidiw bi gëna a jege bo wéso système lumière bi nir ortu nir ortu wowo door ag ci bidiw kon kañ lay ag ci bidiw bi ci top moy shihra sirius te ñun ñëpp ñu di ko jàng mu nekk ci soratu naj mi wa annahu huwa rabu shihra nga xam ne suñu diggante ak moom huit années lumière la bidiw boobu di sihra guddi gi jot ay trois li tàmbalee une heure deux heures trois heures da nga koy seen fii ci asamaan si ndax mi ngi génn jamono ji leer lool bokk ci bidiw yi gën a leer ci guddi gi bidiw boobu mat na jant bi ñaari yoon li jant bi rëy rëy bidiw bee kopp ñaari yoon ndax jant bidiw moom muy bidiw te moo ëpp jant bi lu jant bi lakk ci at ci énergie ci at moom ci ay waxtu la koy lakk léegi nag adduna bépp ci misaal pour nga xam jant ban énergie la yor adduna bi li ñu consommé ci courant chaque at bu ñu ko dajalee ci wàllu énergie ba ne la mi ngi nii jant bi ci wenn waxtu la koy lakk la koy kon jant bi lan lay consommé ci bis lan lay consommé ci at ci weer ci semaine lan lay consommé ci weer lan lay consommé ci at ànd ak jant boobu ak loolu muy consommé yépp biddiw bi ñu tuddee sixra moom ci juróom benn waxtu la koy consommé te ñaari yoon dong lëppee jant bi te gën naa mel jant bi juróom ñeen fukki junni yoon kon naka biddiw yi nga xam ne mat nañu jant bi ay milliards yoon waaw naka te voyageur boobu moom mooy li doomu aadama defal li gën a sore bi ñu xaymaa fa mu nekk ak fi suuf si nekk mi ngi toll ci juróom-ñaar téeméeri milliards kilomètres mooy gën a sore lu doomu aadama kër yeegul te damaa wax ne bu continuer di daw pour mu àgg ci biddiw bi gën a jege bi gën a jege nga xam ne quatre années-lumière la juróom-ñett fukki junniy milliards kilomètres dana ko daw kon kan lay àgg ci Sirius waa naka biddiw yi nga xam ne nag suñu digganteeg noonu ay millions année lumière la yii di ay milliards année lumière te bidi yooyu yépp nag wala xad seenaa sama dunia kon asamaan doomu aadama tegu ko ci bët loolu bokkutal xilaaful ard kuus yi wër suuf si bokkut ak loolu dañ koy jaawale atmosphère yi ngay dégg nii atmosphère yi yooyu ay kuus la asamaa baat bi li muy tekki ci mooy lu kawe waaye asamaan yi ay matière yàlla bind la wax ko sabaxa samawaatin tibaaxan

suuf si mën a noyi mais digg suuf si moo war a tàng jant bi te doomu adama yëpp nga dëkk ci suuf si te kenn yëgu ko kon yërmaane suñu borom ak kaaraangeem xul man yaqlookum bi leele wan ne xeer min arrahmaani bal hum an dikki rabbihim muhridoon kon asamaan su njëkk si moom nekkul fii ndax yi ñu wax yëpp boo ko dajalee taxul nga àgg ci asamaan su njëkk si ndax wala xad seenaa sama dunya la wax bi ma shaabiha kon naka ñaareelu asamaan naka ñetteelu asamaan naka ñeenteelul asamaan naka juróomeel ba naka juróom beneen naka juróom ñaareel ba ngay àgg ci sidratul muntaha ba nga xam ne salaay salaam rek moo ko mas a dépassé ci nit jëm ci sunu borom te fii suuf tàmbalee ci suuf ba ngay dem ci asamaan su njëkk nu mu toll asamaan ñaareel sa toll na noonu diggante asamaan su njëkk sa su ñaareel sa toll na noonu diggante su ñaareel sa ak su sa toll na noonu ba ngay dem ci juróom-ñaareelu asamaan te loo lépp looyu seen muy leer guddi li nga gis ak li nga gisut waaye lépp luy leer ci jaww ji moo xam bi la moo xam trou noir moo xam biddiw la moo xam planète la moo xam weer la moo xam niask la moo xam comète la lu mën a doon boo ko dajalee yàlla da ko wékk ci asamaan si muy muy lang wa laqad jaxnaa fi samaay buruujan wa sayannaaha linnaasiriin wa xafisnaaha min kulli seytaanin rajim illa man ishtaraha shamha fa atbahu shihabun mubinun wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiha rawasi wa anbatnaa fiha min kulli shay'in mawsuun sunu boroom lépp da koo natt ko xam ko teg ko ci nisaam bu ñu organiser maanaam ci système boo xamee ne dara mënu koo yàq nii rek la kon naka bu ñu xamoon quatre vingt pour cent yi nga xam ne kenn taneegula ci ginaaw lepp lepp lo fi gis 5 la kon 95 yi kagn la buñ ko xamone naka la naka buñu bu euh xamoon euh, li ñuy tudd énergie noire ak matière noire nga xamne ne ñoo jël 95 yi 5 rek ci la ñaar téméré galaxie yi nek ñaar téméré milliards yi galaxie bo ci jël ak morom ja nan la wara tollu sun galaxie bi wax len ko ci yaatu way 120000 années euh, années lumière 120000 digg santaru galaxie bi ak jant bi vingt cinq vingt six mille années lumière suuf si ñu dëkke noonu nga xam ñu ñëpp ci dëkk ba aadama wàccee ba léegi nga xam ne matagul fukki junniy at ci nit nit complète nii comme noonu waxuma nag yeneen mbindeef yu fi jiitoon yor ay melokaan doomu aadama jëmmi nit aadama bi mu wàccee fii ci kaw suuf si ba fii ñu toog di wax fukki junniy at ak ñaari matagut lépp looy dégg fi la jaar jamono ji ñu toll jamono ji ñu toll huit milliards huit cent millions ñi ngi dund ci kaw suuf si huit milliards huit cent millions ngi dund ci kaw suuf si ñaari téeméeri réew yu topp ay réew yu mag di juróomi continent am ci ay océan loo xam ne tàmbali na ci juróom ba ci juróom-ñaar nga mën caa lim océan Atlantique océan Pacifique yëpp ba mat mën a lim nit ñi fi nekk te nu nit ñi toll rek jinne yi mat nañ leen fukk ak ñaar waaw nu nit ñi toll rek jinne yi mat nañ nit ñi fukk ak ñaar kon bu nit ñi nee bu nit ñi nee huit huit milliards huit cent millions nombre boobu multiplié ko fukki yoon ak ñaar noonu la jinne yi toll te bu ñu xaymaa li faatoogun tàlle ko ca aadama ba fii ñu toll mat na téeméeri milliards ak juróom-ñett kon li jàll kenn xamu nu mu toll loolu lépp boo leen dajalee espace bi ñu dëkk ci kaw suuf ak géej gi ak réew mu ne lañ ci ci ay frontière mi ngi toll ci cinq cent cinquante million kilomètres carrés naka kon bu ñu weesoon montagne glace yi ci pôle nord wala pôle sud alxutbu shimali wala alxutbu janobi naka bu ñu weesoon montagne yooyu lan moo fa ne ginnaaw miiri glace yu yooyu nga xam kenn mënu ko weesu suñ ko weesoon lu fa nekk ndax lii nga xam ne réew mu ne am nga ci bañ a jàpp ne yow réew sàngam fii nga tàmbali fii nga yam léeg-léeg dara réew fi loo xamee ne kenn du ko gis yéen a ngi fàttaliku 2014 avion malaisie bi daanu woon kan moo ci tane kenn réew yëpp génn nañ seen doole ak seen capacité bi amoon def ci seeni alal ay milliards woor enquêteurs jël ay boto jël ay avion jël ay ay ay hélicoptère jël ak ñi nga xam jàpp nañ ñoo am expérience inspecteurs yeeg surtout wër ko ba sonn mun ñu ko gis ba fi kenn tanewu ci kon fan la wadd du loolu dong de yu bëree bëri la xam ne kon nit ñi li ñu ëppee sax mënuñu koo sàmm mënuñu koo daj ci ci capacité naar Wagner Wagner lan moo ko rey ba fii kenn tanewu ci nga xam ne jàpp nañu ne wàllu mooy ki ci ëpp xam-xam ci liñ xam ci xarnu bi ñu nekk tàmbalee mi na sàmba fii lu ko anamu day dem ci géej gi ba kenn gisatu ko ak matériel ba mu yoroon loolu ñaata nit lañu te suuf soosu noonu mu toll ak noonu mu réy nga xam ne moom la ci nit ñi dëkkee kon naka la ni ñi dëkkee wut te la ni ñi dëkkee wut boo boole loolu lépp teg ko ne jant bi mat na ko un million trois cent mille fois jant boobu Sirius mat ko ñaari yoon jant boobu AC mille cent si mat ko juróom benn fukki milliards yoon jant boobu bidiw bi ñu tudd huit sur mat na ko juróom benn milliard moo ko ëpp juróom benn milliards yoon maanaam huit sur moo ëpp jant juróom benn milliards yoon te jant bi moo ëpp suuf million a ñetti téeméeri junni moo tax salaay salama mas na génn bis fekk Abdullah ibn Omar ak lenn ci saxaaba yi di waxtaan ci jëmmi suñu borom ji mu tere leen ko ne leen tafakkaroo fi xalqillaahi wala tafakkaroo fi saatiillaahi ndax loolu day alage xalaat leen ci li yàlla bind te wattandi di xalaat ci jëmee suñu borom ji ndax kullu maa yatasawwaru fil asaani fa subhaanahu bi xilaafi yàlla mënut a roccam xel loo jàpp ne moom la rek doonu ko yàlla wuute na moo tax moo ne lillahi subhaanahu sabxiina alf xijaabin min nuurin wa zulmaatin law kusifat laxtaraqat subhaatu wajhi kul man taxa ilayhi basaru xar kanam sunu borom ba am na juróom-ñaar fukki junni kiiraayu leer ak yu lëndëm suñ ko muri woon lëgéet lu ci dal tàkk loolu waxin la salaay salaam ne leen suuf si bu ngeen demoon ba jeexal ko am na suuf si ci topp ñu tudd ko albaydaawu jant bi ci ñeen fukki bis la koy wër te ñun suñ suuf si vingt-quatre la lay détourné at mi 360 jours sun sun sun sun suuf si mom ben bis la réew yëpp kenn rawi su moroom ab bis rew yëpp ñu bok ben bis bi ñi dañu rawante fukki waxtu ak ñatt ñi fukki waxtu ak ben ñi fukki juroom ñent waxtu ñi juroom ñaar ñi juroom ben waxtu ñi juroom waxtu ñi ñett waxtu ñi ñent ñi ñett ñi ñaar ñi ben ñi tolloo muy ben bis bi sédal kon sou soosu nga xane jant ba koy dox da koy dox ci ñeen fukki bis ne leen ay mbindeefam fa yoo xam ne mësu ñoo mooy yàlla lu toll ni tarfatal xay na Abdoulaye Momar ne ko ay na iblis xal hum aadami yoon xanaa ñoom duñu ay doomi aadama mu ko ñoom xamuñ ne yàlla bind na ko tudd aadama xulli am laa mu ne ko ay na iblis minhum mu ne ko xamuñ ne sunu borom sunu borom mbindeef yooyu xamuñ ne yàlla bind na ku tudd iblis te loolu benn rek la ci kon an léegi question bi mooy woo la na minal ardi mislahunna yatanasalul amru baynahunna yàlla waxut ay tabaxaat de ay suuf la wax juróom-ñaari suuf loolu bokkut ay tabaxaat yi tubaab yi di jëm a teg wala nit ñu ci des ay suuf ba muy juróom-ñaar ñun benn lañ dëkk kon nga dajale suuf soosu ak yaatuwaayam suñ suuf si ñu dëkk ay li ci toll lépp boo ko tegee ne teg ko jant bi jant bi mat ko un million trois cent mille waa adduna bépp ak ñaar téeméer réew yi ak li fi nekk lépp ci ay réew ak li ñuy lakk ci courant li muy bari bari boo dajalee courant boobu ci am at jant bi di ko lakk ci benn waxtu une heure temps te jant boobu kan moo koy jox courant bi sunu borom bi bind noonu mooy lakk hydrogène ak hélium nga xam ne fii ñun ni ñu miin mooy sawara bu tàkkee fii ci kaw suuf boo jëlee ndox sotti ko ci mu fay jant boo ci sottoo ndox day gën a tàkk ndax amul oxygène suñ bomb yi ñu liggéey ba jàpp ne bomb la ñoo xam ne boo ko dóoree ci suuf si lépp masaloo ñu ngi tuddee nucléaire wala euh, hydrogène bomb hydrogène yooyu ñu ñuy tudd arme sur uranium yi nga xam ne Amérique am na ko Russie am ko Chine am ko France am ko Israël am ko Angleterre am ko dégg nga euh, euh, niki noonu muy bomb nucléaire yu mag yooyu nga xam ne TNT la TNT bi Euh, ci misaal bi ñu bi bomb bi ñu njëkk a sànni Hiroshima ak Nagasaki yi nga xam ne ay bomb lañ yoo xam ne vingt cinq mille tonnes lañuy la ñuy peese biñ ko sànnee am na ci ñoo ne dee giñ dee sax yëguñu ko ndax dañoo def doom fi saasa ndax nucléaire tàng na tàngoor xam bu ñu ko sànni woon fenn ñi ñu koy sànni balaa seen yuur gi di dabaatal ne am na lu leen sànni def nañ doom bu yàgg moo tax borom xam yi ki dee ci nucléaire du ak dee ndax yuur gi gaawewul noonu ndax bomb bi ni mel ndax ñàngaayu bomb bi biñ ko dóoree cinq heures quarante cinq ca sapon lu mat téeméeri junni nit ak ñaar fukk dañoo def seey seey lañ def néew néew sax ci tàkk kon waxtu wa ca topp lu mu war a rey bis ba ca topp semaine ba ca topp at ma ak yàqu-yàqu ñu indi ci jaww ci àdduna te benn bomb la di peese vingt cinq mille tonnes waaw ñaar fukki ak juróom waa kon naka bomb hydrogène bi nga xam ne day peese cinquante mégatonnes maanaam juróom fukki millions yi tonnes naka buñ ko dóoroon kan te bomb yooyu yëpp boo leen dajale woon ak explosifs yi jant biy def te seconde bu nekk mu def ci lu ëpp téeméeri milliards lu tax mu toll benn explosion ndax jant bi dafay def ay éclatement ay cercle di toj di def bëm di toj boo amoon loo ko xoolee couleur yooyu muy def excalaté bi muy kalaate moo koy indi jant bi dafay toj waxtu wu nekk di sànni cuurul toj boobu muy toj seconde bu ne na ci def téeméeri milliards te benn kalatement boo ci jël mooy toroog téeméeri milliards bombe nucléaire yoo doorandoo te moo ne tàngoor yëpp nag yàllaa ko yor occupé ko di ko doxal muy fenq fii di sof yi réew yëpp bokk ko ñii di ko gis ci fukki waxtoo ñaar ñii bu fenkee ci ñoom ba nañu koo gisatit ñetti weer ñii juróom benn weer ñii di ko gis tout le temps comme noonu yàlla organise ko teg ko ci nisaam boo xam ne du du déréglé du dérapé du wàcc ku mës a judd fi nga ko fekk ku dee fi nga koy ba aadama ba wàccee fii ba fii ñu toll ku fi ñëwee fi nga ko fekk fi nga koy ba duñ xëy mukk bëccëg ñàkk jot wala ñu toog guddi guddi ñàkk jot yàlla di ko organiser muy dox waa ndax loolu lépp nag yàlla da ko bind noonu rek sero nga ne ko bind rek ngir da amul tax mu bind ko ah kay doomu aadama la bëgg mu xalaat ci mu xalaat ci afa hasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilaynaa laa turjaxuun ñu xam ne yàlla bindut adduna noonu rek ngir ënd ñu fi nekk noonu mu jeex fin tu ku ne dem déedéet doomu aadama moo war a jàng xam-xam la bëgg jàngal nit xam-xam boobu mëntee sukkandiku xam yàlla xam li yàlla bind li tax mu bind ko objectif bi nit war a xalaat yàlla énergie bu ma ko doon misaal énergie bi mu dépassé ci taxawal li mu taxawal ngir nit ndax jant moom bind ko du caaxaan di ko indi di ko jële fii di ko yóbbu fii du caaxaan di def noor di def nawet di def tàngoor di def sedd ak nit doomu aadama yi ak li ñu bind lépp maanaam li tax mu bind ko xanaa waru ko bind noon rek ñu xëy rek mu jeex mooy da am lu tax mu bind ko te day waaj mooy li wax ne sa niru ma ayat naa fil afaq ñu mën a xam kattanu yàlla ak capacité bi nga xam ne noonu bind adduna yéeme moo tax imaamu xasaay doon wax ne bi mu nee laysa fil imkaan abdohum mimmaa kaana nit ñi wax ne yàlla mënul lu gën a yéeme adduna bi déedéet dafa xalaat dafa wax ne amul baneen adduna bu mel ne suñu adduna bi ci yéeme ndax ni yàlla bind adduna ni mu yéeme ak ni mu ko rab boobu ba tey mu noonu adduna nekk nag munta nekk na neen nu gën a yéeme kon li ma bëgg wax moy euh, ci walu asamaan kon ñox na ne asamaan du fi ndax bo téni li ngay seen lepp jaww dong la likoy couleur mu bulo lolu couleur rek la gaz yi daje ci kaw ak poussière ñoo lay jox couleur sangam comme miñ me nga xol jant bi lélé mu yor couleur bu bulo lélé léeg mu yor couleur bu vert. lélé couleur bu ñuul lélé dedet jant bi dafa tal si jaaxal sam sa an leer gu weex tàll la yor couleur benn couleur la jikko yi sopp yëpp jaww ji la ak li fi nekk boo tee li ngay seen noonu asamaan loolu jaww la rek ndax boo jigéen fi dem ba ca jant bi tamit noonu ngay séenu yu gën a sori jant bi biddiw yu gën a sori ndax soo gisee lenn ci science kat yi wala ci tubaab yi di weddi lenn ci lislaam mooy dañoo jël mbiri te ko ci xel di ko xalaat Steve Hawking te faatu bu yàggul année daanaka 2017 Euh, Albert Einstein mi nga xam ne moom tamit faatu na bu yàgg ci année mille neuf cent cinquante et un ñoom yiñ dëkkuuru ci reñaan yonent bi saa sallam yëpp dañ koo teg ci xel dañ ko xalaat ci xel rek comme ni yëf yi demee woon teg yëpp ci xel noonu rek lu waral loolu mooy ñoom dañoo gis ne biddiw yi ni ñu soree kaw ak seen ak leer ga gaawe leer dafa gaaw mooy li gën a gaaw woon ci lu doomu aadama xam moom leer ndax seconde bu nekk leer li muy daw ci seconde ñetti téeméeri junni la ci ay kilomètres maanaam trois cent mille kilomètres la leer di daw ci par seconde te am na biddi yoo xam ne lu mat ñett fukki milliards yi at ak ñett seenu leer mi ngi daw ba tey mun a tegee ci kaw suuf ndax soriwaay te seconde bu nekk leer gaa ngi daw trois cent mille kilomètres ñu gis biddiw yoo xam ne lu ëpp treize milliards at année leer gaa ngay daw ba léegi te tegeegul fii léegi ñoom loolu nag buñ ne leen am na ko jógee fii nag ba wees asamaan suñ njëkk si dem ci ñaareel dem ci ñetteel ba ci juróom-ñaareel ci wàllu xel ñoom buñ ko gëm lool rek la waaye jullit bi xam yàlla xam l'islam leeru ngëm nekk ci moom du am problème ndax xam na ne capacité suñu borom yi mu fenn te yàlla pour mu kàttan na la defal dara da koy xalaat ci adduna bii rek ñi nga xam ne leen a may may may may ñii mu xañ leen a xañ a xañ ñii mu wéra leen wéra wér ñii mu tawatal leen ñii mu jox leen ñii mu ñàkk leen a jox ñi mu jox leen xel mu ngand ba loolee wax mën nañ koo lijjanti ci ay seconde ñoo xam ne fii ba at mun ñoo lijjanti dara julib moom foofu la nekk moo tax ñoom ñooñu ci science kat yooyu nga ay ay ay mulxidoona lañ mooy gëmuñ dara loolu mooy seen problème waaye teewut nag ñuy dem ba yàgg ñuy xam ne li xew nii moom munta créer boppam mooy am na ku ko sàkk surtout ci wàllu trou noir yi sitif inko waxoon na ci lu bari ci bi misaal na doomu aadama fu mu mën a nekk na xam ne solution la ndax bu demoon ba ci trou noir yi sax nga xam ne moom amatul delsi da trou ko fa dem amul delsi ñoom dañu yàpp ne trou noir moo séparé ñoom gëm nañ ne am na lu lu bokk te te trou noir moo séparé loolu mu ne boo demoon ba ci trou noir yooyu sa jàppal ne solution am ndax boo duggee ci trou noir yooyu da dem ci leneen mais dootoo ñëw fii ci biir loolu science kat yi dëgg ba xam ne salaay salaama ci trou noir yooyu moo quitté adduna ci buy rayaan dem ci boroomam ndax li li ci gën a yéeme mooy trou noir li ma waxoon sànq mooy kuppandal boobu ak noonu mu rëyee ni mu toll ak ñuulaay boobu mu ñuul ak yaatu boobu mu yaatu ba lépp lu ko jege ci leer mu wann ko mu seeyal ko jant bi ak système bi yëpp buñ ko jege woon mu wann ko te du te du feeñ salaay salaama romb yooyu yëpp dem ci boroomam te taxut ab yor ab dégg-déggam nga xam ne nopp yaa ngi dégg ba tey ay bëtam di gis ma shaaxal basaru wa ma taxaa laxad ra e min ayati rabbihil kubra afarayatum ila axiril aya bi maana mu romb yooyu yëpp ndax pour nga kiti ko suuf si rek nga kiti génn suuf si génn sa lumière bi génn niir orte génn suñu galaxie bi ba galaxie bi jeex nga teg ci beneen galaxie ba mu ñaar téeméeri milliards galaxie nga génn ko ba génn lépp luy kawnu bi nga door dem na ci asamaan su njëkk si يقول صلى الله عليه وسلم كيتكو تتخوت ناخوت غيس غيسو بتم واغنيكو لام دون ليرالاي لير ديم نيوات موتاخ يالا دي نيتالي كاوتو فيو ما ساخال بصرو وما كسب الفؤاد ما راى مار على ما يرى ولقد راى النصر الاخرى عند سيده المنتهى عندها جنة المحوى ايش يخشى سيده ما يخشى ما يشاغل بصره وما تخا loolu la nga xam ne yow pour nga quitter pour mën dem ci asamaan su njëkk si dimension si espace bi ngay dagg pour mën a dem rek xaju ci bopp doomu aadama ndax pour nga génn suuf si rek tubaab bi bii su espace yi ñuy sànni liñ ciy dépassé ci ay milliards pour mën a génn suuf si li si maanaam li suuf si occupé pour ñu génn ko rek loolu moo seer ay milliards lañ ci dépassé pour mën a quitter suuf si nga xam ne pour nga dem ci weer wi rek dana dajale nga aajawoo nga dajale koom-koom bépp ak moyens yëpp te te tax sax léeg-léeg du sotti te weer wi mooy li gën a jege suuf parce que suñu diggante du dara kon naka boo demoon ca boo waroon dem ci ab biddiw planète yi képp benn planète bu doomu aadama tegagul tànk amul ak li addunay xereñ xereñ ak fi ak yëpp palaaneet miriix ñaata yoon lañ ko dàkk mënuñu fa àgg suxal moom waxaale wu ko moom muxuma dem fa waaye gis ko képp yombut miriix bii rek nga ne boo jógee ci suuf si moom nga ciy teg pour nga dem fa tubaab bi lu def nañ ko te taxul ñu dem nit doomu aadama demaguñ fa weeru yi képp ñu ne dem nañ fa 1969 ba fii mu waxee doomu aadama ama maanaam munu munu faa demaat ci lu leer kon naka boo doon dem ci jant bi te jant bi lu jege la sori na nag ci bu ñu waxee nombre kilomètres yi ndax doomu aadama muy cent cinquante millions kilomètres ak loolu mu am ci tàngoor lépp ak kalaate yooyu mu def yëpp nga xam ne moo benn kalaatement boo ci jël moo tolloog téeméeri milliards bomb nucléaire yoo dóorandoo kon kañ nga koy romb bay dem ci centre maanaam bay dem ci centre galaxie bi ñu nekk kañ ngay génn suñu suñu galaxie bii nga xam ne cent vingt mille années lumière la bay dem ci galaxie bi ko gën a jege muy que la majorité andoor mine andoor di deux millions cinq cent mille euh, mille année lumière kañ nga koy génn moom tamit ba ba kañ ngay dem ba génn ñaar téeméeri milliards si yëpp kañ nga koy génn kañ ngay dem ba génn ak bi nga xam ne kenn xamagu ko moo ci des kañ nga koy jeexal bay dem ci asamaan su njëkk si waxaale ma asamaan ñaareel si kon doomu xam-xamam ak li muy bari bari ak capacité am yëpp taxagul sax waxuma la sax asamaan su njëkk si waaye lim nattagul rek taxagul mu mën koo jeexal taxagul mën koo jeexal te loolu ay junj yu alquran di junj la wa min ayaati xalaqu samawati wal ard wa ma basa fiha min dabatin wa waxlaa jamhihim wa isa yasa wa kawteefu sunu borom umina ayaati yurikum barxa xawxoon wa tamaxan naka bu la déglu melax wala wala dënu naka jant bi ni muy tàng-tàng lépp nga xam ne six mille degré la ñun waa suuf ñuy consommer ci at ci adduna bépp boo dajaloon li ñuy lakk ci courant ci énergie ci at jant bi di ko lakk ci benn waxtu jant boobu di six mille degré kon ñaata lay lakk ci at jant boobu loolu mu tàng-tàng lépp melax mat na ko juróom benn tàngooru melax woowu mu àndal trente mille degré la fan fanweeri junniy degré kon boo indee degré jant bi teg ko ne dañ ci indi juróom mu door a tolloog tàngoor woowu nga xam ne mooy gunge yëngu gi waaw kon naka degré yi nga xam ne dafay dem ci ay millions te am na am na yu bëri yu yoo xam ne danañ ci àdduna dana ñëw jant boobu tàngoor woowu du dara ci boo ko xaymaa ci tàngooru melax wi nga xamne moy gundé gunge yëngu saa bu ab dëng dé ñëw melax gi moo koy escorté escorté boobu mu koy escorté tango wu muy andal di lem jawu ji pour mu mëna a yëngu pour wane màggug yalla way sabbihu rabbi bihamdihi day tollu ci 30000 degré te jant bi nga xamne 6000 degré képp la aduna dox di dox ba jant bi ubbiku ubbiku gu muy ubbiku di xër aduna bi dana baxal geejji lepp lu fi nek su geejji baxé kon ñuy dund taxul ñuy wax nit ñi lepp soppi ko yamatar ya jufu rajifa ha radifa alquran da koy jangal te yeb mi ngi mi ngi fi te dara ak segu ci nak su wan tangor la wara am wan li jan li alquran di jangal ci jant bi isa sam su ko wi sa nu kadar energie bi ko wara def ndem jant bi moo tàngee noonu bon énergie moo war a dem ba lem jant bi ginnaaw bu jant bi lemee planète yëpp dugal ci boppam ba énergie mooy ñëwaat lem jant bi taxañ ko nga xam ne mooy feel adduna te yëpp mi ngi fi alxuraan koy tudd di ko leeral xanaa ñun ñoo ci du def attention rek waaw kon doomu aadama na xam ne yegg ci asamaan si loolu baneen mbir la motax ku nek fi di di di di di tëbëka dar rek da nga desee xam li xew ndax capacité bi di do am yépp li ko wër sa taxul mu comprendre ko waaw taxul mu comprendre ko motax tax yalla di bàkku ci alcorane diko wax ci yi lañ mëna joggi pour mëna dem ci yoy xam ko naka amna ben grâce bi ñu tuddé AC 1101 moom nga xane buñ ko xayma ak nimu uppe jant bi toll na ci 60 milliards fofu ñaata biddiw ñoo ra nek kon ñaata bidiw ñaata trou noir kon ndax suñu galaxy bi rek amna na noir yu fi nek yo xane mat nañ jant bi ay milliards yoon kon naka galaxy boobu nga xane ne loolu ëppee jant bi moom ñaata trou noir ñoo ra nek ak yeneen yu bari kon li ab teunk la ci won bo ne lu jara bàyyi xel la kon suñ ko doon wax xulaasatul kalaam moo de ne li ñu doomu ci li ko ci àdduna nii muy duniyaa bi li nga xam-xam xam yegg na ci di ko topp ci wàllu ay matériel ay xam-xam doomu boroom xam-xam di ko jàngat liñ ci gisagun ci wàllu yaatuwaay ci wàllu science quatre-vingt-treize milliards année euh, lumière la quatre-vingt-treize milliards année la te quatre-vingt-treize milliards année lumière yooyu cinq pour cent lañ ci xamagoon quatre-vingt-quinze pour cent yi kenn tanewu la ci te soo dajalee loolu lépp ak la nga xam ne xamaguñ ko ci yaatuwaayu àdduna bi mi ngi mel ni géej gi nga jël ci benn toq kon boo xamee loolu lépp ba dajale ko taxul taxul nga romb asamaan su njëkk si lii rek laa buggoon wax ci tënk li ngay seen lépp kenn tegagul bëtam ci asamaan ku du salaay salaam alayhi salaatu wasalaam muhammadu rasulullahi salallahu alayhi weer wii képp ñi naan dem nañ fa ñi ñi fi demoon ñëpp bañ desee dañoo tax kenn ku ci déggati normal amul ak moyens yu leen joxoon lépp ci ay moyens ci ay tiset ay ay ay yoo xam ne day day kal gaz di kal lépp nga xam ne dépassé nañ ci ay milliards dollars teewul ba ñu ñëwee dañoo tëx ñii beeru ba keroog ñuy faatu nii am ni soron gis nga ko ba mu ne ba ni mu faatoo rek lañ ko door a diggaat ay wéri duy mett mu leen daal yoo ne kenn mënu koo faj te nee nañ ci weer yi dong lañ dem ñëw tëx ay feebar dab leen ak li leen joxoñ ci ay moyens ñu sol ay yére yoo xam ne day kal tàngoor di kal ab sedd di kal yépp ci ay moyen ñu liggéey ko ci fa liggéey gën a kawe teewul bi ñuy del si dañoo wéré di wéré di yëleen daal tëx ci gën a tuuti te nanti nañ ci weeru dong lañ demoon waaw nee nañ ci weeru dong lañ demoon nag ñuy del si tëx lu tëx ba mënuñoo déggati seen yaram di génn ay picc yoo xam ne kenn mënu ko faj ak li adduna yi avancé avancé ci wàllu technique ci wàllu matériel ci wàllu médecine yëpp taxul kon nak buñ demoon kon kon kon buñ demoon ci xottaarit foo sax mënuñu faa dem parce que dafa waaye naka buñ demoon ci miriix naka buñ demoon ci soxal wala mustari naka ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex di ko sàkku ci yéen di ko yemale fii incha allahu taala euh, ba jëmmi jamono waaye yëpp daal lu mat di jàngat la lu mat di xalaat la lu mat di xamle la ndax nit ki lépp lu koy dolli tawxiid dolli gëm yàlla mu xam ne àdduna bi yàlla defu ko ngir fo Badara. dara ya, yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi mu tan yónni ko ci jam ñi ak effort yooyu yépp ma wax mu bind ko ngir ngir ki ba noppi yónni war ko ci jam ñi ndax lolou lako ko def non rek nit ki yakare mom nak man na def yeneeni pexé lu mu bëlañ bëlañ fe ba dara du xew ndax yi ñuy jàkkaaru bu setam am rek mo lay xamal li amagut ne li lépp lu mu tudd la nga ci xam mu wér la ca des lépp noonu la mel ca misaal ñun ñun ñëpp fii ku ku judd ba màgg ba màgget ba faatu ndax kenn ci ñu mas naa gis jant bi retard war a xëy fenk te fenkut wala sojot moo war a sa tasawut weer wi ak génnam jot te génnut ndax kenn mën naa gis ñu nekk ci bëccëg ba yàgg bëccëg gi jékki-jékki soppali ko gudd completement wala ñu nekk guddi ba yàgg guddi gi soppiku bëccëg complètement kenn mus koo gis wala nawet jot wala noor yooyu dara dara nit ñu yàlla waxee ren noonu lay amee kenn mësta xëy gis jant bi tardé noonu mu wéree nag nga xam ne ñëpp xam nañ lu wér la ndax yàlla la koo def noonu rek comme nga xam ne ko def noonu rek pour ñu daal ñu xëy di yeewu rek xëy faatu jeex noonu déedéet ndax li gën a mooy xar soo si dugal la ci dañ ko miis motax grawul waye deur gën ko ñang ci adina moy xar suuf dugal ci nga nekk ci benen dund dara gën ko graw su gur jotee nga seen bidiw yi suni maam tanu adam ba léegi ñu lañ ko doon seen ni ñu seen bidiw yi ba ci aadama ñun ñi dund dewen ka ñu lañ ko seen ba tay ni newet doon jotté nord diko jotté ba mo fi ne dara wu te non la jangale won kon yeneen yi alxuraan di jangale wala sallallahu alayhi wa sallam di ko jàngale te noonu lay accès noonu lay amee dara du ci jaas keroog bu yàlla taxañ suuf si te te yooyu ñu wax yëpp ak li bis dina ñëw yàlla taxañ lépp wekki suuf si démonter jant bi wekki ko wekki planète yi wekki weer yi wekki biddiw yëpp wekki galaxie yëpp wekki asamaan yëpp téye ko day am jant bay ni kenn mënu fa dem te bis dina ñew yalla wéké ko wér yi duñu tiim bis dina ñew yalla wéké ko suusu ñu nek bis dina ñew yalla nako ko té te téye li day am lii wax rek nga mo ñu gëna jégé jege mo wara ñew ñu war ci tek suñu bëtt moy wax gi mu wax ne danañ dem bis do ma yi di dund di dund ñu xey benn bis kenn du gis jant bi sétal lool ñu yeewu rek kenn gisul jant bi do aduna bëpp xey duñ gis jant bi jant bi du fenk nga nekk ci noonu rek bam lëndëm lëndëm googu yàgg yàggaay goo xam kenn mënu ko wax bam man ñetti fan te ñun ñëpp jant bi buñ koy gis penku lañ koy gis ñu xëy suba gis ko mu jóge sowu di ñëw loolu saa la ma ko wax nee na dañu tegale ñetti fan àdduna bépp yow jant bi du fenk àdduna bépp yow jant bi du génn fenn ci àdduna bi ba man ñetti fan ñu jékki-jékki seen jant bi jóge nii di ñëw su boobaa nag yow ma tar ju fu raaj fa yëngu boobu yàlla wax ne suuf dana ko yëngu ba ku ci nekk yëng ni suuf si yëngu na day te ay nit la fiy fekk yow ma tar ju fu raaj fa tat baxuxa raadi fa lu jóge ca jaww ànd ak yëngu suuf suuf si ba ñëpp jaaxle am lu jóge ci jaww ci asamaan nit cirib dal ci suuf ba suuf si gàllugóo si quluubun yawma isin waajifatun absaaruhaa xaasi'a day am fii lay ne isaa su lar yi ngi seen yëpp day am fii lii ñuy dund nag mooy jant bi fenk fii di soof yi noonu mu wéree yooyu di ñëw yëpp noonu la wéree te dana maa ngi dellu di tuubal sunu borom subhaanahu wa di seere na moom benn buur rekk la di siyaare yang sama taalibe ak sama cofeel ak sama mbëggeel ci mawlaana abdullahi wa rasulhi sering sëriñ tuba xaadim rasul di nuyu di siyaare ñëpp wasalaamualeykum wa taala wa barakatuh